kuy wax yaay wax ah. merci beaucoup euh, Alassane Samba Diop mo ñu doon andal euh, ci gan xibaar yi ñu ci si doon àndal nag tey euh, Cheikh Bamba Diagne tout de suite ñu dem jëli tonton Ada ak Sila Moungara. oh mais booy. wa grand frère. non non mais booy xalé ko kenn ngay ñàkk yàlla. lu ñu xeex. nee na man naa way hymne national. ah may ma deux mille francs. ñu koy mais dama am problème. waaw fi mu naan euh, kii nu mu tëddee. ah le lion euh, naka fi ñuy waxee ba mu wax. le lion rouge a la. pour man ar ah. a ah, ah, bougé waaw. mais dama am problème boobu. le lion rouge a bougé. para para papa. booy na ma deux mille la nii mais pour ma wax ko ba problème la. deux mille la mais grand xoolal. Ah. fu toll nii la ma la waxoon yëpp dama cee génn. je m'en sors définitivement. xam nga lu xew. Touba xéewal la fa am liggéey ngi fa ku dëkk Touba ku ne. waaw Khalifa Diakhaté nee na mi ngi. waaw na nga ko jox sa dëwi. ña am daal ñëpp nag Khalifa ay financé. eh màggal wala ki ñaaw Khalifa ay financé. mooy mandarine. non fu mu tibbee mooy mandarine. fu mu jëlee moom la ñu taamu ci yoon pour. waaw nga dëgg de. Khalifa yaay mandarine. jërë ngeen jëf ada ak si la buñel ñu jëm ci waajtaayu ko màggaluk Touba gi waajtaay gi ci yoor yoor gi la ñuy amal daje bu mujj daje boobu bi euh, résidence Xalimul Rasoul moom moo koy euh, dalal ñu fay euh, xaar ci dëkk bu sell boobu bi ci talaata ji Aliou Ngouye Ndiaye jëriñ ñu dénk wàllug biir réew mi joytu waa gaaru ca Beaux Maraîchers jàpp nañu ne bërëb la bu yombal dem ak dikk bi ak noppal ñi si yëngu loolu moo ko taxoon a jóg waaye si ñoom seen yaakaar da see tas ca la ñu wax

dana siiwal doxalin bu mu jàpp ne doxalin la bu dana suqali jëme réew mi kanam sa Seck ci micro i rajo bu mi ngi madame Ndiaye